Eh, gannaaw bi sant yalla julli jant sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp eh, di wax nak ci turu eh, xuddaamu turas moy kurel gi nga xamne ne nek tuba te saytu patrimoine Cheikh Ahmad Bamba khadim Rasul bi te ñu ko ci jamono yi seigne sidal al Muxtaar andon ko ak njabootu seigne tuba gep ak mbokk yep ak talib yep moy kurel go xamne ne dal Cheikh Mahamadou Moustapha ba seigne sëñ murtala Mourtala ñi ci la ko dalé ci Mamor Diarra ba ci seigne Massamba ak njabootu ñi ci waaye la ko dalé ci maam Cheikh ibrahim Fall ci cheikh yi ba ci cheikh isa Dieng ak ñepp seen njaboot ñi ci yaakaar nit ñi min nañ leen bu baaxa baaxa baax ci euh nit ñi sayto saytoo ndonal seigne Touba muy patrimoine Cheikh ahmad bama Khadim Rasoul bi té buñ né patrimoine lepp duggu ci biir muy dëkk bi ngi ci biir juma jaa ci biir khasside yaa ci biir leppam mi ngi ci biir ak fu mbiram nek ci aduna bi Euh, tey nag ñu ñëw euh, di yëkkati ay kàddu yoo xam ne dañ koy euh, sof ci kàddu yi nga xam ne moom la xalif général de Mouride Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg te wér déclaration bi mu nga xam ne def na ko démb ci loolu la ñuy sof suñuy kàddu ngir gën ko firndeel ngir gën a wéyee ndigal li nga xam ne moom la Cheikh Mamadou moom la Cheikh Mamadou Mountakha joxe ndax buñ dee sàmm. patrimoine ba ki nga xamne mom lañ koy sambal muy xalif general de mouride yekati ay kàddu xamne yu am solo la euh, ngir euh, gën a sam euh, sàmm googu ñun waruñu ludut en tant que ay taalibe ak ño xam mom lañuy liggéeyal lu rafet lu kàddu yoyu ak gën ko firndel ak gën ko léral manam bi maanaam li ñuy chara ndax borom xam-xam nañu bind ay wah. wala wax ay wax ñeneen ñëw leeral kàddu yooyu leeralaat wax yooyu ba ci niñ ko mën a misaal pour mu gën a leer alquraanu karim tafsir yi tafaasir yi ngay gis yëpp mooy sun borom subhaanahu wa taala day wax yontu salaasam firil ñu ko borom xam ñëw leeralaat ko pour mu gën a dugg ci e, xelu nit ñi naka noonu xadis yontu salaasam ko noonu lañ koy chara noonu lañ koy leeral rawat na waxi nitu yàlla rawat na waxi koo xam ne xalifa la tey sàmm loo ko muy sàmm e, liñ ci njëkk jàngat nag mooy ci kàddu yi di ko leeral mooy li ñu mën a tudd ak fiir goo xam ne feeñ na ci kaddu Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg te li ñu mën a tudd fiir mooy fiir ci lu baax fiir ci liñ ko dénk fiir ci liñ ko sàmmloo te fiiraange googu euh, yàlla sunu borom subhaanahu wa taala moo ko njëkk def yentu sallallahu alayhi wasallam melokaanoo ko ñu baax ñëpp melokaanoo ko yentu sallallahu alayhi wasallam wax na ci xadis ne inna allaha yaxaar wa xayratullahi an yatiya al muminu ma xarama alayhi yontu sens moo njëkk leeral ne ñu yàlla suñu borom subhanahu wa taala day dana fiir ñu ne ko ca lan lay fiir mu ne mooy dana fiir ci ab aji gëm yàlla gis nga de aji ngëm yàlla al muminu bu ñëwee indi loo xam ne yàlla da ko xaraamal nee na boobaa yàlla dana fiir yontu sens kazalika benn bis mas na digg ay saxaaba yu waxtaan ca biir waxtaan am ko ne man day diw boo ko fer moo ko bettoon muy def naka sudu noonu sama biir kër di ànd ak séq ak sama soxna danaa ko faat kenn wax kenn wax leen yonent salaas bi leen digle ne leen day man mii day maa leen gën a fiir fuuf ci loolu ngeen wax te yàlla ma gën a fiir euh, mu wax ca ne al mu'min yaxaar wallahu ashaddu xayran ab jullit day fiir te yàlla moo gën a fiir ab jullit kon ngay gis ne fiiru yàlla suma wa lépp mu ngi jëm ci li xaari mooy li mu xaraamal yàlla dafa fiir ci euh, maanaam li ñu ma tudd jàdd aw yoon mooy mooy yàlla yàlla dafa fiir ci def naka su dul noonu yonent sansam kasaalika noonu la fiire ci kuy def naka su dul noonu naka noonu noonu la ñi nga xam ne nag ñoom ñoo donn yonente yi te ma al ulama hum warasatu ambiya kon lépp lu yàlla subhaanahu wa taala di fiir yonent sans di ko fiir ko ñoom ñu sàmm leen ko seen ginnaaw ñooy ñoo ci gën a war a fiir سبحانه سبحانه وتعالى لم وقت ربك على نصر رحمه يلا كبر يرمان لا يلا كبر يرمان لا واي لم يبر يبر يرمان لب واخنا واخنا تي بنين ايه والله شديد العقاب امنا فهم دفع نبي عبادي اني انا الغفور رحمه وان عذاب هو العذاب الاليم واخنا ينتصر سنك وخال سما جامي نيلن دي من دي كو ام يرمان لا كو يرمان لا كو جيغلا واي نك سما بوغل تملو تر لا ويونتو سانسم دو كاساليك نول ني مي فيس دلك يرمانه li muy yaatu lépp ak li muy nooy lépp ba sunu borom subhaana taala taggoon ko kañoon ko ne wala kunta faddan xalida xalida xalbi lan faddu min xawlika fa'fu anhum wastaxfir lahum loolu nga xam yàlla melakaal na ko ci misa yu jekk yu jub yoo xam ne sunu borom subhaana taala da ko wax teewul lépp yonte salaas daf fiir fiir goo xam ne gu gu yéeme la eh, ci ci lu ci lu dëppwutu ci lu jaarut yoon ci lu bokk ci diine bokk ci lislaam moo xam ki ko def daa yàlla moo ko xam ki ko def dafa gëm yàlla suma subhaana taala moo tax Sëñ Tuubaa bi muy kañ yonte di ko tagg ci baax gi ci lépp ba muy wax ne raamal wara nay la fadlin musriina lahu wal fadlu inda rasulillahi qaraar mu ne mbindéef yëpp daw nañ wuti yontu sallallahu alayhi wasallam ngi wuti eh, lu baax ngëneel lu ñu am te ngëneel loolu ma nga sax ci yontu sallallahu alayhi lan la ci teg dana kiltaa yadayhi laha saayun tulaazimuhu eh, badlun wa bësun liman laanu wa man jaar wa jaaru mu ne ñaari loxoom ya yu sell ya muy ñaari loxoom ya eh, jëfa nga ci joo xam ne daa taqu moom mooy bas lu ko tabe la ku am yërmaane la ku ñeewantu la boo ñëwee da nga ko fekk ci loxoom ya waaye bësun nag ku dëgër la ku tal la ku wex la euh, ci ñi nga xam ne dañoo jeng jàdd aw yoon waaw képp koo xam ne am nga jikko ju rafet nooy li yàlla digle yaa ngi koy def boo ko jegee moom yontu sallallahu alayhi boo ko jegee yontu sallallahu dana la yiir dana la yërëm dana taf ci boppam waaye bu fekkee li yàlla digle danga ko xotti warmaaloo ko def na ko sut noonu yont yon Sëñ Tuubaa nee na yont saa sa moo gën a tar moo gën a wex moo gën a nak sudu noonu kon loolu lañ ciy dégg mooy euh, kuñ sàmmloo kuñ yilifloo kuñ yiirloo da nga yiir ñëpp da nga yërëm ñëpp ci kaw ñoo ngay yërëm ak ñi ngay yiir ñu wëy ci ndigal yàlla suma subhaana taala waaye bu ñu ca noppee yi maanaam maanaam maanaam làqu nag bu ñu ca noppee def naka sudu noonu maanaam di ko xotti ak di ko war man booba nag Euh, la yonent sallallahu melokaan yonent sallallahu alayhi wasallam meloon moo war a ñëw ci yow moo war a gën ci yow moo tax Sëriñ Tuubaa mi nga xam dafa wut yonent sallallahu alayhi wasallam la woon ku dëgër la woon ku fiir la woon ci koo xam ne li yàlla subhaanahu wa taala digle nekkoo ci moo tax Cheikh Mamadou Lamine Bara borom guy mi ne bi mu koy kañ ko da koy wax ne euh, fillahi du shiddatin xaasil fuaadi ala man lam yakun min jamii xalqi mumtasila ah, bi mu koy way di ko kañ di ko tagg Euh, dafa wax ne euh, Sëñ Tuubaa day ku tar la woon ku woowoon ku dëgëroon xol la woon ci ku tar gi ak dëgër xol ci kan la ko jëmaloon mooy koo xam ne toppul ndigali yonent sallallahu alayhi wa sallam dégg nga Sëñ Tuubaa li muy am yërmaan li muy def lépp euh, li muy yër mi def lépp ak li muy yor seen njariñ lépp daa nafax bi laa dara din waaye képp koo xam da nga daan jàdd yoon képp koo xam da nga meloo ni nga xam ne moom la yàlla suma soxna dig ak yonent sallallahu alayhi wa sallam digle da nga maanaam maanaam maanaam taruk Sëriñ Tuubaa kon loolu mooy euh, fitra bi nga xam ne yàlla suma wa taala moom la moo ñaale euh, yonent yi moom la moo ñaale borom xam-xam yi nga xam ne dañuy jàmm yàlla te sellal moom la moo ñaale ñi nga xam ne yàlla di leen jiital ci ñuy sàmm euh, maanaam lislaam ak di sàmm noonu nag la sëriñ Mountakha Mbacké mii nga xam ne dañ ko xam ci lawet xam ko ci lépp lu mën doon waaye lewet geeg baax gi lépp mu ngi jëm nag li li ki ko xam ne li li yàlla bëgg yànga ci li yontu sens bëgg li suñ Tuubaa bëgg yaa nga ci waaye imma heure boo ci jàddee nag day daal di melokaan melokaan yu yontu meloon suñ Tuubaa meloon ko ñu baax ñëpp melokaanu ko kon jàpp naa ne lii nga xam ne moom Cheikh Mamadou Mountakha wax loolu nit ñëpp dañ ci war a am dégg-déggin boobu waaye ñi nga xam ne nag euh, euh, xëy na dañoo jàddu yoon wala xëy na euh, maanaam nañu war a mel dëgg ñu ko ñooñu nag la Cheikh Mouhamadou Mountakha di waxal te ñooñu nag yontu sallallahu alayhi wasallam yàlla wax nañ ci alxuraan kanam yontu sallallahu alayhi wasallam leer nañ ay ñooñu nag ñooñu ñuy tuddee alfaasiquuna mooy ñi nga xam dañoo kàccoor mooy ñi nga xam dañuy tooñ mooy ñi nga xam ne gëmuñu yàlla mooy ñi nga xam ne foo leen fekk dañuy waat ne yàlla lañ gëm te fekk gëmuñu yàlla subhanahu wa taala kon foofu la sëñ Mountakha jëmale kàddoom yi pour lan xam ne dañ koo sàmmloo xam ne dañ koo euh, wattuloo xam ne dañ koo jox ndénkaane te moo yirif képp koo xam ne yaa ngi am murit nga képp ko xam yaa ngi wéy ci ndigal sëñ Tuubaa yi Cheikh Mamadou Mountakha mooy sa kilifa kon nag kaddu yi mu yëkkati kaddu kuy sàmm la kaddu kuy jàjje la kaddu kuy ñaaxa la kaddu la yoo xam ne lewet gi li muy for for lépp ah bu jaddu yoon ñëwee nag mu taxaw ni yenn sens na taxaw sëñ Tuubaa doon taxawee kon daal lii mooy kaddu yi nga xam ne ñun ah, ci turu Xudaamul tras danañ ko yëkkati di rafetlu kaddu yi di ko yàlla Mbakke fi yàgg te lool ci barke ndax kat wax dëgg yàlla fii jamono toll ak yàqu-yàqu jamono bi mu toll ak ñi nga xam ne dañuy ruur fi ñu toll ci biir ak ñi nga xam ne dañuy làqutoo ci biir keppaatu Sëriñ Tuubaa fi ñu fi fi ni ñu baree pexe kon kàddu yu mel nii eh, wala wala discours mel nii lañ doon séntu ci moom te alhamdulilahi rabbil alamin defal nañu ko te defal na képp koo xam ne fiir nga ci diine defal na képp koo xam ne bëgg nga lu baax defal na képp koo xam ne rek li fi Sëriñ Tuubaa bàyyi eh, maanaam bëgg nga ko te koo xam ne taalibi wala taalibi Sëriñ Tuubaa sax maanaam yow lislaam moo moo la ñor moom nga bëgg kon ab jullit fu mën a jullitoo rek ah, bu ab jullit yëkkatee loo xam ne day defar diine kooku da caa war a bëgg da caa war a kontaan te loolu mooy li nga yàlla suma subhanahu wa taala baaxee waa Sénégal tey kàddu si mu tax a yëkkati tey ji boo doon dékk mikoro ñiy murit ak ñi dul murit ñëpp dañ koy rafetlu mooy ña bëgg lu baax nag mooy ahlu tuqaa mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg lu baax te sell ñoom ñëpp dañ cee ànd dañ koy rafetlu xam ne daa jot sëkk ndax képp ku xipsi bët xool jamono fi ni mu yàqoo ci réew mi sénégal ak nit ñi ni ñuy defal lu leen neex ak ni nga xam ne noonu la ñu war ma noonu la ñu xottee may euh, xurmaatullah yi mooy maanaam yàlla màggal loolu dama jàpp ne képp koo xam rek dégg nga kàddu suñ mu taxaay da nga ca kontaan ci bëgg kon mbàkke balla dañ koy ñaanal yàlla fi yàgg te wér te ak yàggam ci suñ kanam mooy lislaam a ngën a defaru yoon waa ngën defaru kon daal yi mooy kàddu yi nga xam ne waa xuddaam tax duñ ko yëkkati jaar ak suma tur di ñaan yàlla yàlla na fi sax mun taxaa te wér te yàlla nañ bokk ci ñi nga xam tamit alladina yastamiuna qawla fa يتبعون أحسن أولئك الذين هدوا أولئك أولئك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته